waajur war na xool doom di ko di ko di ko di ko rey di ko dóor ba muy dee pour man loolu war ta mën a nekk. nit warul jël doomam maanaam di ko dóor ba mu dee loolu rafetul loolu rafetul loolu moom li lii war na cee wax population war na cee wax bu baax a baax waaw parce que doomam dafa sax si xool sax xam xamante ne nit waru koo ko dóor ba mu dee loolu moom rafetul ko ñun surtout jigéen waaw daanaka en temps dafa metti yi aussi nga jur sa doom moom ba mu war a dem mag yow nga koy jàpp ba dóor ko ba mu dee loolu rafetul ko ñun jigéen ñi waaw. loolu moom rafetuñu ko moom. Eh, doom dafa neex quoi waaw mais nag tamit quand même xam nga doom tamit neex na waaye léeg nga tiital ko dóor pour tiital ko loolu moom amul benn problème tamit doom tamit doo ko mën a xale doo ko mun a bàyyi tamit ci lu ko ne parce que ëllëg mun na laa jural loo xamante ne yow sax di nga buñ la ko waxee di nga ne déedéet du suma doom. mais dóor pour tiital moom boobu moom amul problème mais dóor ba mu dee moom loolu rafetlu ñu ko wax dëgg yàlla. Lol mom mom lol mom dafa xajul digënde doom ak ak ak waajur waaw. Ah, war nga ko yar yar nu kesso nek na door la parce que déjà def na lu mu war na def dang ko wara wo yedd ko da ngi dégg bu dee nit ku mën a dégg la dina dégg ndax ñun eh, ñun ñun ñun suñu yar bu ñu yar. daaw ñoon yar di ñu jàpp di ñu door door nag ci la bokk waaye door xobal la rek mais nga toog dugal kerse ci moom moom moo ëpp solo fuuf nga yar ngay door ba dee dee ci xaj parce que maanaam tey ji ak lu mën a def bu fekkante ne te yow dugal nga kerse ci moom yow nga nekk fa ñàkk fa nekk fu mu mën a nekk mu nar a def eh, benn bêtise rek bu xalaatee ne yaa ngi dégg yow boo ko yeggee rek bu boobaa moom dina moytu quoi loolu moom pour baas mooy kersa ci njaboot maa ngi ne bu laloo rek fu mu mën a nekk rek dina def di boo ko bàyyi ci àll moom fu mu mën a nekk moom dina sa xel xelam dina nekk ci yow ne lii de bu ma ko defee saa bu ko saa bu sama papa yeggee wala sama yaay yeggee yaa du ko neex bu boobaa dina moytu lu baree bare ndax ñun loolu la ñu xamoon waaw loolu la ñu xamoon. dóor mënul ñàkk. mais dóor be mu dee moom loolu moom loolu moom képp ku ko ku dee waa ku dee ku dee waajur la dóor ba mu dee loolu moom man wax dëgg yàlla rafetulu ma ko en tout cas en tout cas xam naa ne ñëpp duñ ko rafetlu ñëpp duñ ko rafetlu parce que rafetul sénégalais xamul loolu sénégalais yërmande la xam mais pas ay yenn yi quoi. surtout bu fekkee jullit nga aussi même boo dul jullit sax. loo mel war nga kon sa bopp parce que loo mën a def rek après rëcc moo ciy topp parce que toujours nit def loo xam ne bu mu commencé di rëcc fekk rëcc mi ngi ko neexee ak li nga ci kii vraiment boo ko tiim di man man daal li ma jëkk a wax rek mu am nit ko ànd xelam war koo mën a def pour man